xabaar yi ñu wëyal ko ba léegi waxtaanee euh, parrainage beeg wàccaay gi maître El Hadj moom jot na wàllam ci nar yi mandataire am bii di professeur euh, Gabriel Malaw moom jox nañ ko ay fiisam ngir mu dem nag euh, ñu war a commencé léegi collecter seen ay fiches jëm ci parrainage su atum 2024 ca présidentielle ya leader bi nag di maître El Hadj Diouf jiite parti bii di PTP. Euh, war a dem nag ci coalition El Hadj Diouf président euh, loole nag euh, ñu gis ne dana bokk li tax li sub candidat léegi egg ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci réewum Sénégal élection présidentielle atum 2024 ñu jàpp ko 25 février buñ ca eggee fi mu ne nii nag ci parrainage ñii di candidat yi jamono ji di baagante fële ca DCE ngir di récupérer seen ay fiches de parrainage Youssou nduur ma nga fa woon ci jaarale ko ci ab mandataire am xabaar bi ñu jëlee ko ci dakaar Dakaractu euh, moom mi nag gis ne euh, lu yàggu dara dañ commencé kon di collecter seen ay euh, parrainage ngir mën a waajal seen candidat bii di Youssou Ndour ngir mu bokk ci élection présidentielle yi atum 2024 ci fàttali Youssou nduur fukki at a ngi nii mu nekk ak Macky Sall artiste la bokkoon ci coalition bii di benn bokk yaakaar ba fi mu nii nag. officiellement lancé ab candidature am euh, lii nag situation la boobu euh, comprendre ko ci du yomb euh, ba tax na nag ñuy xaar ba xam aw mbir la mu muy def ngir teg ay pexe wala bokk dafa bokk ci ancien politiciens yi seen façon doxalin lu ci mën a xew dana leer atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent fii ci réewum Sénégal. ñu baax leen xabaar bi ñeel rappeur bi ñu daan wax Tupac moom mi nag day ku ñu faatoon. Euh, ci anam ci atu yàgg fee ci réewum États-Unis xabaar la boo xam ne sax nag bëggoon nañ cee ñëw ci lu jiitu tey jii waaye xawoon a nekk ci yitte rawatina gàmm gi gi ni mel ba taxoon mënuñ ci woon a ñëw moom Tupac mii nag dañu ko faatoon jamono ji mu am 27 ans ñaar fukki at ak juróom-ñaar ñu wax ne ki jamonoom lam daan yëngu day mënoon ko ca jafe na mooy jëm ji def falaar gurus gi ci bopp bi moom mi nag ginnaaw ba ñu ko faateeg léegi mu war a mat war a jege fanweeri at terewul kilifay réew États-Unis bàyyiwuñ benn noon di gëstu lu ko faat ba léegi mënuñu woon a xam lu ko faat ku ko faat terewul ñu ngi doon wéer gëstu bi am na jëmm ju nu jàpp ci mbir mi ne daal jàpp nañ ne moo ko faat ndax moom ñi ngi ko faatoon atum 1996 booba ma nga ma nga daal duggoon ci ab doon dem ñu do dogaale ko ci jamono ji doon bëgg a daal euh, jéggi fa faruus bi daal di koy nag euh, tiire ay bal mu jaare fa ñàkk bakkanam ginnaaw ba ñu ko yóbbu hôpital aljuma gi ñu génn nag ñaar fukk fan ak juróom ñeent ci septembre procureur bu nekk fële ca Las Vegas daal di xam ne na kon am na ku ñu jàpp kok njot nañ ne daal moom mi ci ña ko faat la bokk loxoom takk na ci ku ñuy wax keef di yaakaar naa kayif di moom dañ rek moom mi nag nee ñu moom membre la woon ci benn gang boo xam ne nee ñu daal ñoom yàgg na lool ñu àndoon doon liggéey mu wax ne kan bokkoon na ci ñi nekkoon ci oto bi nga xam ne bal ya daloon Tupac ba faat ko ci oto boobu ma nga cee woon moom mii sax moo ko xam ne ci benn live bu mu doon xam bu mu doon def atum 2019 xam le ne daal ne bal bi dal Tupac ba faat ko oto ba mu jugee ci oto boobu ma nga cee woon bal bi nag ci ginnaaw lu jugee dal Tupac mii mu daal di faatu kon ginnaaw ñaar ginnaaw lu jege fanweeri at ba ñu ko faateeg léegi ñuy wéy di gëstu lu ko faat kon mujj nañ cee teg loxo jëmm ji ngeen di gisoon takk weer yi moom mi daal nee ñu jàpp nañ ne ci la ko faat loxoom setu ci ñiy wax itam ne kon mbir mi daanaka day doo tambali rek ndax comme jàpp nañu ab SSP daañu wéyal enquête bi ngir dem ba xam kan noo ko faat loolu di loo xam ne moom la procureur procureur bu nekk fële ca daal di xamle kon moom ñu faatoon ci atum 1996 ay atam tolloon ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu ne ki jamonoom lam doon yëngu daal mënoon ko ca jafe na am na kon jàpp ci ak faatoom ginnaaw lu jege fanweeri at enquête bi bàyyiwuñ ko benn yoon ba teg ci loxo ah, ah, ah, jëmm ji ci euh, kii bi nga xam daal moom dafa wax ne daal bokkoon na wala bokk àndoon na ci gang bi nga xam ne euh, jàpp ne ne ñoo daal di faatoon Tupac mi atum 1996